niñ lañ ko doon junjee ci boppu xibaar yi Mamadou Oumar Ndiaye njiitu euh, yéenekaay bi di la témoin joxoñ baaram tuuma maître Abdoulaye Wade ne lubal koppar yi am ci nguuram yépp moom moomu mooy njaak ndax euh, mooy njiitu réew mi te it euh, am na noo xam ni bu ko taxawee woon xëy na lu ni mel nit du ko xalaat ba di ko ñemee def ci émission remue ménage bi am ci RFM Alassane Samba Diop euh, di ko animé fa la yëkkee kàddu yi ni mel gannaaw euh, émission bi kon euh, daa dinay féddali kàddu yooyu laaj tontu dox digganteem ak Émile Diouf ak Missane Ndoye il s'agit Ndiaye euh, ancien directeur nga jël Ibrahima Ndiaye mi fi nekkoon DG post wala mbay Diouf mi nekkoon chemin de fer euh, ba ci Ndeye Khady Diagne bu Sodida bi leen lay Wade bëggee toroxal daf leen tëj ràpp ci kaso bi ndax ay adversaire lañu woon ci wàllu politique te pourtant fii la bàyyi ay farandoom yu sàcc alalu askan wi kenn tëj leen kaso loolu président Ablaye wat la neex nguur gi fi nekkoon demoon na bay mel ni mafia xëy na am nañu ci seen loxo set waaye boo seetee ba seet barewuñu li ci ëpp bi ñu gisee ne mën ngaa def sa jëye te kenn du la sanctionné ci lañu ñu profité dajale alal bu kenn xamul ni mu toll. am na ci ñoo xam ne amuñu woon dara ci alal ci tawu Abdou Diouf bi alternance ñëwee ci lañ jékki-jékki am alal bu dul jeex ba di jënd ay këri kër ci bërëb yi gën a cher ci bitim réew. man daal li ma jàpp mooy que ni président Abdoulaye Wade moom mooy ndey mbili gi boo seetee ba seet sax moo ko encouragé kon nag bu fi kenn ne président Wade yëgul wala mënu ci woon dara. d'incapacité à servir.